Mat ko Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. yow yaay coordonnateur mouvement cadre taxaw Sénégal CAPS cadre d'analyse prospective ak stratégique gis nañ ki nga xam ni moo di président de la république mel ni li jëm ci loi amnistie bi nekk lu ko ñor lool ba tax na euh, génne na li nga xam ni moo jëm ci décret yi nga xam ni itam moom moo war a ëmb mbir yi ci yenn ci ay fee yi nga xam ni itam jot na fi am ci euh, réewum Sénégal moo xam fii ci Sénégal wala biti réew euh, li ni mel nag lan mooy sa commentaire bu njëkk ci projet de loi bi nga xam ni itam daal nañ koy fësal. waaw euh, projet de loi boobu président bëgg a yóbbu assemblée yóbbu na ko ba pare sax. dañoo jàpp ne méngoowul ak yoon euh, mënuñu événement yi am ay xale yu ndaw ñu ci ëpp amuñu ñaar fukki at ñàkk ci seen bakkan ba léegi moom dafa newoon depuis deux mille vingt et dinañ def enquête ñett at léegi enquête amul xamuñu ñan ñoo leen boom gis nañu ay camion yu joge siège APR def ay nervi ay nit ñoo xam ne solu ñu tenue police euh, ni gendarmerie gis nañu euh, ñu tiire ci ay jeunes ba ñu ñàkk ci seen bakkan gis nañu alal bu ñu bëri ñàkk gis nañu yeneen jëfin yu ñaaw yoo xam ne waroon nañu taxaw def enquête xam ñan ñoo ko def waaye waajur ñu ngi jooy encore seeni doom nga ñëw ne li amoon deux mille vingt et ba léegi day mel ni musul xew waaye boo nee musul xew te ñi dee mënoo tax ba ñu jóge ci cimetière yi ñu nekk bu dundaat ñooñu donc boo nee da nga def amnistie rendre leen justice donc loolu moo tax ñun loi bi mënuñ ci ànd nekkul lu ñuy rafetlu te dañoo jàpp ne mënoo yor réew fukk at ak ñaar nga bàyyi ba sa nguur jeex nga ñëw ne da ngay effacer bépp jëfin bu ñaaw boo xam ne say ñooñ ñoo ko def loolu it bu fekkee euh, nangu nañ ko beneen président bu ñëwee it day jàpp ne mun na def ay moom ak ñi mu àndal mun nañ def lu ñaaw lu leen sob te dara du leen ci fekk waaw donc loolu moo tax sur le principe nekkul loo xam ne mun nañ ci ànd dégg nañu itam ñi nga xam ne yenn ci ay détenus ba nu génnee ci prison récits yi nga xam ni yëpp euh, daal nañ koy wax ba ñu si bari ci seen famille yi nee nañ bëgguñu li nga xam ni moo jëm ci amnistie da nga jàpp ni même bu jàllee assemblée nationale ëllëg ci biir itam mun nañ ko abroger. waaw ñun jàpp nañ ne d'abord député yi ay sénégalais lañ dund nañu ak ñun li xew fii. am na yoo xam ne aussi ànd nguur waru leen ko jaral ndax seen der seen tur day nekk ci loi boobu ba faw te jàpp nañ ne ni ñu jàppee xale yi troxal leen ñu bëri def témoignage yi e, ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan waruñ ko mën a effacer donc loi bi e, député yi waruñ ko voter waaye bu ñu demee ba voter ko aussi ñi ko war a attaqué war nañ ko attaqué ndax Sénégal warul toll foo xam ne nit day def lu ko neex dindi fi ay bakkan après mu ne politique la woon rek jeex na. léegi nag lan moo war a nekk taxawaayu député taxaw Sénégal député yi de manière générale sax mais y compris yéen assemblée nationale am ngeen fa ay représentants du peuple lan moo war a nekk seen taxawaay ci loi bi. waaw ñun nag euh, génnewuñu suñu position officielle donc mënuma wax ne position officielle la waaye taxawaay bi président Khalifa Sall amoon ba ñuy voté loi Ezzan ci ñi boomoon maître Sèye taxawaay boobu lañ yaakaar ne moom mooy wéy ndax président Khalifa ku ko xam xam ne aussi nit koo xam ne euh, du soppeek du soppi doxalinam na mu doxalee démb lay doxalee tey aussi donc ñu jàpp ne li gën mooy li nga xam ne yelloowul ak jub yelloowul ak lu gën ci Sénégal ndax beneen nguur bu ñëwee aussi mun na faat nit ba pare raxas ko ne mbir bi musul am donc gëwuma ne loolu euh, dina baax suñuy député voté ko mel na ni mbir mi fast track la parce que déjà rek assemblée nationale ñoom jot nañ ci mbir mi kon mun nañ jàpp ni du yàgg dinañ ko xool nañ koy voté. waa loolu président Macky waxoon na ko keroog bi muy def dialogue am bi nee na moom euh, gouvernement am euh, ñu def lu mu wax te jarul sax dialogue parce que loolu prérogative président la. koo xam ne da nga oote waxtaan waaye nga ne mbiru am ne bi moom jarul sax ngeen. may wax moo ko gën a soxal mbirum présidentiel bi de. waaw moo ko gën a soxal ndax day protéger boppam ak ñi mu àndal. waaw loolu moo ko moo ko gën a soxal. bu leen fàtte Pierre Goudiaby Atepa bi mu defee sorti am nee na euh, président dañ ko war a rassurer donc euh, nooy euh, rassurer mooy lan. rassuré mooy koo xam ne da nga def loo xam ne waroo ko woon def bëgg boo demee kenn du la topp donc euh, loolu euh, fast track la ko def comme ni ngeen ko waxee euh, loo xam ne da ko ñor la te ñun jàpp nañ ne sax la mu doon naxanteeg waa PDS yëpp lii la doon waaj pour bu demee ba bugg a def loi boo xam ne da nga soxla député yu takku mu am député PDS yi gunge ko ci loolu voté ko donc ñu ni dañuy oo waa ñu vigilant ndax ñoom bokkuñu woon ci nguur ab Macky Sall ba léegi donc waruñu mun a jël li gën a ñaaw ci bilan Macky Sall ñu def ko seen nodd ñoom loolu war nañ ko bañal seen bopp ndax tey bu ñu effacé lépp lu ñaaw lu gouvernement Macky Sall def day mel ni ñoom dañ contribuer ci ci bilan boobu Mat Codé Ndiaye yow yaay coordonnateur cadre yu taxaw Sénégal euh, wax ci beneen fànn bokk na ci li nga xam ne moo jëm ci làngum politique bi euh, nu mu jaxee diggante Pastef ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taxaw Sénégal lan mooy problème bi. waaw loolu de bëgguma ci woon taxaw ndax dama jàpp ne euh, ba si ñu toll nii li ñu Macky Sall teg rek doy na ci lu ñu war a mën a dajale ñun waa kujj bi. pour ñu euh, jàkkaarloo moom xeex loolu waaye bu ñu demee ba suñu biir muy am xiiroo ngaayoo nekkul loo xam ne mën nañ ko rafetlu euh, ñu jàpp ne manifestation nekkul lu yomb surtout boo dajalee ay partie ak ay mouvement yu bëri ku si nekk waroon dem ak respecter ñeneen ñi nga àndal malheureusement bi ñu demee ñun suñu représentant nekk le maire Cheikh Gueye ba mu jotee pour mu war a wax xale yi dañ ko yuuxu léegi bañ ko yuuxoo nag foofu la mbir yi tàmbalee jaxasoo donc ñu jàpp ne lu ñuy ñaawlu la euh, ñiy organiser manifestation yooyu te ñu si bëri bokk ci société civile ñoom ñoo war a gën a xam ne dañoo war a euh, tëddee njaaxanaay ba bu ñuy organiser ti lu mel ni ñu def de sorte que parti politique yi euh, ñu traité leen à égalité te ñu passer des messages yoo xam ne dina tax ku si nekk xam lan moo ci sa wàll lan moo ci sa cër donc ñu ngi euh, ñu ngi koy euh, ñaawlu li jot a am euh, jàpp nañ ne nekkul lu ñuy avancer comme ni ko président Khalifa Sall waxee ci bis ba lépp loo xam ne war na doon taxawaay kilifa bi mu doon parce que moom moo kilif nekk kilifa wu ñëpp expérience bi mu am et tout donc dina ci taxaw ba nga xam ne. yu mel nii dootul munati am te combat bi ñu jàkkaarloo muy combattre le régime du président Macky Sall pour mu teel a organiser élection candidat bu si nekk dem uti baatu sénégalais yi ba ku si sénégalais yi ne yow la ñu tabb ñu xam ne yow yaay président donc jarul ci biir kuju bi ñuy xiiroo di ŋaayoo. lan ngay tontu ñi jàpp ni acte de sabotage la bi nga xam ne dañ ko planifie jàpp ma ne loo xam ne dañ ko planifié la. ndax euh, foog naa ne bis boobu bu ñu bàyyi woon euh, Cheikh Gueye wax kenn yuuxu ko amul benn provocation dara du xew donc euh, gëwuma loo xam ne c'était planifié ñun ci taxawu ay jeunes yu responsable la am des femmes très responsables et donc combat bi ñu nekk ci biir opposition dañ ci yàgg am taxawaay ba ñuy nekk yeewi ak euh, F24 ak yëpp suñu taxawaay ñëpp a ko mus di rafetlu suñu leader yi nekk un des leaders les plus responsables de ce pays yàgg ci nguur yàgg xam naka la ñuy gérer état nekk ku républicain aussi donc li xajamal liggéeyu opposition du jóge ci ñun. naam du jóge ci yéen est foofu moo nekkoon ndaje moobu moo nekkoon ndaje bi nga xam ne da ngeen war a fësal seen divergence est-ce que itam ñi nekk ci geneen wet gi nekk ñu di leen ree bu fekkee ni ñoom itam ñu ngi marche te kenn du leen ko tere ci euh, apaisement bi nga xam ni itam moom la ñu woote waa benn Bokk Yaakaar waa loolu dëgg la loolu dëgg la parce que ñun bu ñu nee dañuy xeex nguuru Macky Sall ba pare di xeex suñu biir euh, loolu nguuru Macky Sall moo ciy kontaan ñoom ñoo ñoo ñuy ree moo tax aussi ñu war a ressaisir xam ne boo nekkee ci xeex bu ëpp solo xeex yu ndaw yi yu sew sewaan yi euh, da nga koy moytu ndax objectif bi nga am objectif bu am importance te boo buggee population yi déglu la aussi il faut nga am taxawaay boo boo war a am donc lu ñuy regretter la duñ fi nekk di ko jën a yokk euh, dañuy def de sorte que loolu dootul amati. Euh, sunu leader nee na moom dina ci dox dina ci wax ba lu mel ni euh, mu bañati amati ci biir ku jégi li ñuy wax bokk na ci ginnaaw le 2 avril président de la république moom nee na dina saisir conseil constitutionnel ngir mu laaj ko avi euh, coow li nag bari na lool président dafa war dem laata le 2 avril président dafa war a toog wala président assemblée nationale assuré transition bi coow li bari na ba Sidiki Kaba sax yëkkati ci ay kaddu euh, li ni mel Mat Codé yow lan moo ci sa commentaire. waaw euh, situation bu ñu nekk nii mun naa wax sax na guuta la bi ñu nekk nii président Macky Sall moo ñu si dugal. ndax bu bàyyi woon ñu dem élection le vingt cinq février euh, une semaine ci ginnaaw tey jii nii xam nañu ñan ñooy dem deuxième tour ba ñu ngi nekk ci campagne du ñu nekk ci après le deux kan moo koy remplacer ak leneen moom xam na li ko constitution wax yàgg na ko xam ndax depuis deux mille seize conseil constitutionnel nee na ko sa nguur munoo ci yokk benn fan munoo ci wàññi benn fan donc moom xamoon na ne. bu poussé élection yi it am na loo xam ne mënu ko weesu muy le boobu donc moom waruloon woon ñëwaat sax di ñu fàttali le day dem wala du dem wala kan moo koy remplacer ndax loo xam ne jour bañ koy fal la xam kañ la di jeex newul daa dem ba euh, euh, ren di soog a xam le yàgg na ko xam donc loo xam ne defu ko ci fukk at ak ñaar yi nekk président warul woon xaar ba ñett semaine des élection mu ne day day euh, day repousser élection yi donc ñun jàpp nañ ne fu mu nekk nii li ko conseil constitutionnel wax la war a def leneen lu mu def rek mooy dafa joggati constitution te moom dafa waat bañ koy fal dafa waat bi muy def serment devant le conseil constitutionnel que dina respecter la constitution te dina def ba ñeneen ñi aussi respecter ko waaye moom ndaje boobu mu oote ne dialogue national la moom ci boppam moo leen o pour ñu jalgati constitution ndax moo leen ne mën nañu organiser élection yi sax avant hivernage loolu mooy mën nañu jéggi datu le deux ba pare wax leen ne mën nañu sax reprendre processus bi ba ñi nga xam ne bokkuñu woon mën a bokkaat alors que conseil constitutionnel wax na ko lu leer mënul élection yi mënuñ jéggi le 2 avril bi ngay jeexal sa mandat waaye aussi processus bi day continuer te ñii ñooy candidat définitivement donc moom li muy pexe yu muy andi yëpp mu ngi jéem a jalgati constitution dañ koy wax mu àndaat ak xelam euh, mu organiser élection avant le avril ni ko ko conseil waxee ba léegi c'est possible waaye dafa mel ni nag day jéem a perte temps pour rendre loolu impossible su boobaa nag jën nañu dugal ci beneen guuta ndax bu deful élection avant le 2 dañuy am euh, li ñuy wax vide juridique mooy loo xam ne suñuy loi prévoir ko léegi loolu buñ fa àggee nag conseil constitutionnel rek moo mun a mottali loi bi te ñun jàpp nañ ne bu naree mottali loi bi it mënul wax ne président Macky Sall moo fi toog ndax loolu bu ko waxee day woroog li mu waxoon ba pare ne président Macky sa mandat le deux lay jeex am amul benn fan boo ci mun a yokk donc lenn rek la mun a def mooy constater ne pour am na vacance de pouvoir jël ay décision waaye ñun ñaan nañu yàlla mu teel a jël décision boo xam ne day jàpp datu élection ci biir mois de mars avant ñuy egg te lu mën a nekk la ah, lu mën a nekk la parce que campagne électorale trois semaines la fu mu nekk nii fii ba le am nañu quatre semaines donc bu ñu jëlee semaine bii décision ne dañuy commencer campagne électorale samedi bi wala dimanche bi dinañu dem élection fin mars. Mat Codé Ndiaye yow yaay coordonnateur cadre yu taxaw Sénégal ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci na nga nangoo tontu sunuy laaj. nangoo tontu sunuy laaj. nangoo